Non, même avant, j'avais trop de choses à faire. J'avais trop de choses à faire. Parce que la société pour S-Fly One. Bon, maintenant, ça fait maintenant des années que je déroulé. Ça fait du BTP, euh, def ay euh, genre transport, import, export. You know, ni ni rek ma wara livrer ay ay matériel ay produits agricoles ma ko wara envoyer euh, à l'extérieur donc euh, souvent boo ma joxee trois cent cinq mètres carrés sax bu dee yoroo xaay sax man mun naa gën a say moyens defar la ko bu dee am nga garantie leer nga may fay par ndànk ma def tabaxal sa kër donc mooy BTP bi beneen bi tam maa ngi benn mouvement bu mag bu tudd seen Afrique seen Afrique pour dajale jeunes intellectuels yi ñi nga xamante ne ay militaires yi retraité lañ amatuñ liggéey ñii ñi ngi cité jàng ba pare amuñu liggéey comme ni ñuy xasee gars yi da jàn jàng amoo liggéey loolu yëpp bëgg chômage boobu jeex fi jeunes yi nga xamante ne aussi ils ont quelque chose dans leur tête et ils n'ont pas fait les bancs il y a des gens intelligents yoo xamante ne ils n'ont pas fait les bancs seen amuñu ay diplôme mais mën nañ mën nañ servir dara si dëkk bi surtout les militaires yi nga xam dañ leen dañ leen libéré ba pare ñu ngi si dëkk bi dañu mën nekk ay agent sécurité wala quelque chose comme ça donc pour rassembler noonu mais encouragé wuñu aussi kenn pour nga bañ a jàngi jàng mooy c'est le meilleur jàng moom il faut faire les études c'est le meilleur voilà donc aussi non non maa ngi ci aussi don de sang bi mooy projet bu tudd Arena Blood Sport et Santé donc pour le déficit de du du euh, au Sénégal donc euh, voilà quoi euh, depuis que Sénégal est né ils ont ils n'ont jamais atteint l'objectif du don de sang des des poches de sang non no non non ça n'a rien à voir il a un rapport par rapport à la politique voilà quoi. amoo ci ay partenariat aussi. ay partenariat de quoi. yeneen mbër waaw waaw mbër yi am na mbër yu bëri ak surtout artistes yi ils ont ils d'accord sur le concept. aspect social bi c'est très important euh, Sénégal nag gis naa fi ay quelques autorités yoo ma ne xam xamuñ sax luy sax action sociale dañ leen koy wax ñuy jàpp affaire bi ay mais ku ñëw signer convention avec la synthèse le centre de transfusion sanguine le professeur Saliou Diop ma def sama première journée à la place de Malibu Guédiawaye le ministre Diouf Sarr même ñëw foofu nommé ma fa ambassadeur. sollicité ma sama journée bi vraiment jàppale ma comprendre nga kon nekk loo ma ne du du faux dañuy soxla Sénégal ñi defar ko africain am am am benn esprit boo xamante ne euh, di donner leur sang dañ ne boo mayee sa deret trois au bout de trois heures temps boo mayee automatiquement day ñëw si trois heures temps day fekk mu rempli ba fekk. waaw récemment gis naa sama grand bi euh, nekk le Protos Léo Léoto euh, imposé na Sa Thiès mu def. don de sang ak Boy Niang def don de sang donc c'est un acte vraiment très important parce que sang boo ko mayee au bout de trois ans comme loxo de 18 à 60 ans moo am droit may deret il faut les gens être au courant de ça moins de 50 kilos aussi du may deret donc may deret soxlawul nga animé soxlawul nga asafula nga ponkal wala nga tuuti il suffit que animé woo rek mën nga may deret nit day am yaram sax su fekkee dafa animé ay affaires yooyu tere nañ ko may financement financement mooy suñu problème mooy bloqué affaire yi parce que damay gis ne à chaque fois man su may dem di may deret di def don de sang je prends mes propres moyens pour def ay don de sang donc du benn def naa le quatre novembre à la place de Mali bu Guédiawaye def naa le 28 Sicap Mbao avec waa daayira Hizbut Tarqiyyah wa Tarqiyyah donc maa ngi pare beneen événement bi le 29 septembre bii nii à la place de l'Obélisque donc maa ngi ay événement maa ngi ay programme yu ma jël voilà pour pour pour xool maa ngi xool entre l'Obélisque wala parcelle fan laa ko si defee euh, fur et à ñi dem naa lañ jox date bi exact ñi liggéey ci loolu arrêté ma pour def loolu mais juste que dañuy dugal ay projet pour ministère bi jàpp ci mais souvent ya xaw a jël ay temps day xaw a yéex te don de sang nekk na loo xamante ne warul yéex sang dafa sang xamante ne quatre jours lay def ci imagine buñ ko utiliser wul day yàqu am boobu dina dem bàyyi trent cinq jours donc san da nga koy téye ñu bëri war dañu foog ne sang da pour un an non ñun dañu war di may deret dañu war am habitude di may deret femme accouchée yi drépano yi dialyse yi accident yi ñi war opérer am ñoom ñu ngi euh, euh, hôpital tëdd dañ leen di xaar seet parce que bu ñu opéré amuñ deret wóorul nii ne ñu ngi préparé benn femme boo xamante ne dafa animé déjà gravement te nii mënagul jël ay fer te mi ngi war a accoucher nii maa ngi toppatoo group sanguin mag yooyu yëpp pour ñu préparer ay poche de sang balaa ma accoucher sinon ba rek day am catastrophe nii nii récemment Louga am na femme bu décidé moog béy bi dem xam nga yooyu c'est un truc un koy wax nit souvent dañuy benn kilifa di ko wax xamuñu sax luy luy loolu gis nga am xaalis ak xam intelligence c'est diamétralement opposé xaalis loo xaalis luñ lu loo xamante ne dafa dafa tombé si nit rek la yaa ngi dégg mais am na yoo xamante xaalis sax mooy tax ñu am gel bu ñu amoon gel du ñu am xaalis bu ñu amoon xaalis du am jël du moins donc il faut ñuy jël benn aspect boo xamante ne mooy aspect intelligence bi ñu koy utiliser di sauver seen peuple bàyyi folklore bi.